waaw mbokk yi incha allah incha allah ñu ngi war a jël tey aaya juróom ñaar fukk bi ak juróom ñeent muy soixante dix neuf ci suuratu naml fi suñu borom di waxee ni fa tawakkal ala allah ñu ngi noonu yaa ngi ci deuxième ligne bi nag ci page bi trois cent quatre-vingt-quatre bi mi ngi noonu fa tawakkal ala allah innaka ala alxaqi almubin إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi kon ñi ngi dal wala yëggale tey li nga xam ne mooy suratu Naml tey mooy le 24 ci weeru septembre ci 2020 le 23 Naml le 23 ci weeru septembre 2020 di tombeeg le 6 te la nga xamee ne nii mooy weeru safar sunu maam yi di ko wax diggoo gàmmo ci 1442 ñu ngi yëgal mbokk yi it kenn ko bokkoon ci ñun ñu koy wax Babacar Ndiaye ay at mi ngi ñëw ci tafsir bi yàlla dogal na at juma bi paase la faatu ngeen ñaanal ko yal na yàlla jéggal ko yërëm ko te defal ko àjjana wàccuwaayam defal ñu ko defal ko bépp julit bu dee Cheikh Ousmane pare na kon incha allah ñu jël suñu bind bu njëkk. barakallahu fiikum suñu boroom subhanahu wa taala mu ne ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fatawakkal ala allah na nga sukkandiku ci sa boroom dimbindikoolal sa boroom innaka ala alxaqi almubin yow de yaa ngi ci dëgg gu leer ga naññi innaka la tusmi'u almawta yow day mënoo dégguloo ay néew yoo xam ne dañoo faatu wala tusmi'u summa du'aa doo mën a dégguloo aji tëx ab woote ida wallaw mudbiriin su dee dañoo dëddu di wone gannaaw wa ma anta bi haadi al umyi an dalaalatihim nekkoo di mën a jubal aji silmaxaya ci seen réer ga in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina doo mën a déggal lu dul koo xam ne daa gëm suñuy aaya fahum muslimun te ñoom day ñu nekk ñu jébbalul seen boroom wa ida waqaa alqawlu alayhim heure boo xamee ne nii rot na kaddu ga ca ñoom dal na kaddu ga ca ñoom axrajna lahum daabatan min al ard daan génne ñeel leen aji daaba muy loo xam ne day dox min al ard mu génne ci biir suuf tukallimuhum mu nekk di wax ak nit ña أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تموي نيني داي نيكون نانتي آية يالي دنيو نيكون بيش أم غمبور ويوم نحشر من كل أمة فوجا بسبغا خميني ني دان جن تي بيب خيت بن مبولو فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون mbooloo ca ñu weddi woon suñuy aaya ñu nekk ñoo xam ne dañ leen di tegale rangele leen xatta ida jaau ba baa ñuy dikkal seen borom nag qaala akazabtum bi ayaati walam tuxiitu biha ilma mu ne waaw ndax da ngeen ne weddi woon samay aaya ke péegu leen ko woon ci xam-xam am maada kuntum taamaluun wala boog ci lan ngeen nekkoon di ko jëfe ووقع, ووقع القول عليهم بما ظلموا نون لي دالي تي نيوم كادو غا تي تون يني تونيون فهم لا ينطقون بكروغي نيوم دني نيك دي واخ ميغي نونو بوك سوني بروم day wax ak suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ci mission bu màgg bi nga xam ne moom la ko teg menace yi di ko jóge fu nekk mu ne ko nag na ngay wékku ci sa boroom ay dimbilikool ci sa boroom li ñu lay jëkk a wax mbokk mooy yeneen ci yàlla boobee kenn sikku sàkkwul ci ni mboolem nit ak jinni moo leen gën moo leen ëpp ay daraja teewul borom bi ne ko wékkul ci yàlla kon kooku heure bu déggoon keneen koo xam ni mi ngi wékku ci moom di dimbinikoo ci moom naan yaa muhammad loolu dana ko metti lool kon wékkul ci yàlla loolu di wañe képp ko bokk ci xeet bi ngallaway wékkul ci yàlla suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na képp koo xam ne jullit nga booy dimbinikoo doo dimbinikoo kenn ku dul yàlla wa ala allahi falyatawakkalil muminuun suñu borom it wax nañu ne képp ku ko dimbaloo ko dana ko doy wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu mi ngi noonu ku dimbali ko yàlla mu doy la yàlla bëgg na jaam yi nga xam ne dañuy wékku ci moom wallahu yuhibbu almutawakkilin looloo tax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam génération sahaba yam doon yar rawatina ndaw ña ne woon ne ibnu abbas ne ko ay xale bi ida saalta fasalillah wa ida staanta fastain billah booy ñaan bul ñaan kenn ku dul yàlla booy dimbinikoo bul dimbinikoo kenn ku dul yàlla xamal ne mboolem mbindaa fa ni buñ daje woon ala an yanfa'uuka lan yanfa'uuka illa ala shay'in katabahu llahu lak mboolem mbindaa fa ni buñ daje la woon dañ laa bëgg a jëriñ ci benn mbir duñ la mën a jëriñ lu dul yàlla tudd ci yow ñoom ñépp buñ daje woon bëgg laa lor duñ la mën a lor lu dul yàlla bind ci yow te yàlla lu mu doon bind bind na ko ba pare kon nga la way yow julit it fa tawakkal ala allah loolu mooy génn wàllu diine bokk diine ñaar rek la mooy gëm yàlla dogu ci jaamu ko ñaareel bi mooy dimbali ko te mooy iyyaka na'budu mooy liy jóge ci yow ci gëm gañ koy gëm ak dogu ga waaye nag wa iyyaka nasta'in yàlla yow la ñuy dimbali ko sa mboole mi mbir la nga yaakaar ci xéewal la nga ragal ci lor la hawla wala quwwata illa billah amul kenn ku am pexe ak kàttan ku dul yàlla moo tax rasul sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu mën na am commencé par imam Sarr bi muy génn këram fàtte na ko booy génn sa kër looy wax bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah maa ngi génne ci turu yàlla wékk naa samay mbir yépp ci yàlla pexe kattan kenn amu ko ku dul yàlla kon fa tawakkal ala allah loolee mbokk nga la way julit bi nga xam ni yaay naan yaa cheikh boo fakka solo yàlla na la sëñ diw defal nangam ñi ngi yaakaar nangam sëñ diw gal la waay fa tawakkal ala allah sëñ diw laa hawla lahu wala quwat yow mi nar a dem ca njabarkat ba yow mi dem ca seetkat ba fa tawakkal ala allah yàlla jàll wa ala dong mooy ka nga xam ne moo am pexe kattan gannaaw ba nag mu ne ko yaa ngi ci dëgg gu wóor gaa yi negam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo soxla woon yàlla naan ko yaa ngi ci dëgg waxuma suñu jamono yi tey loolu it maa ngi lay bégal yow mi nga xam ne da nga jël alquran ak sunna doyloo ko innaka ala alxaqil mubin booy déglu suñu rajo yeeg télévision yi da ngay dem mu ngi ne seetlu waa moom ndax ñii ñëpp mën nañu dëppoo ci erreur déedéet kii na sëñ diw fii la kii na nangam lii la kii na nangam lii la wallahi mbokk la fi la ilaha illa huwa dara du diine lu dul la yonente bi alayhi salaam bàyyi woon xeet bi te mooy alquranul karim ak sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam yow mi ci jàpp doyloo ko da nga dégg ñu ne ñooñu ñooñu gëmul dara ñu ngi noonu ñoom gëmuñu dara ndax ñoom lañ créé gëmoo ko waaye innaka ala alxaqil mubin dëgg rek mooy la jóge ci yàlla ak yonente bi yonente bi ki sahaabam dañ ko jaamoo yàlla amma nag dëgg gi li muy leer leer mënoo fexe ba déggal ki dee gaa yi ki dee boo ñëwoon ci moom naan ko néew jógal julli ndax dana jóg julli abadan ci dee mënuloo ko déggal rawante ne ne borom xam-xam yi daa ñoom ixtilaaf ci ndax néew dana déggam du dégg yow ndaw mi toll ci njàng soo fexoon ba am kitaabu ruux ibnu alqayim al jawzi dala ci wax lu bare bare bare bare ala kulli xaal bokk na lu ci gën a not am na xaal yoo xam ne dañ ko dégg masalan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki buñ ko suulee su ay mbokkam dee dem mi ngi dégg seen tànk yi ni muy dale ba génn armeel yi gannaaw ba yàlla may ko yónnee ko ay ay malaaka yu ko laaj suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam it su ma sàddem di ziyaara bàmmeel day wax ak ñoom waxu direct danaan assalaamu aleykum ya ahla diyaar loole suñu borom yàlla subhanahu wa taala ci kattanam mën na leen a déggloo ci loo xam ne du yow sa kaddu la ñuy dégg directement ci sa gémmi waaye déggee ko neneen te jii dem nañ ba doomu aadama créé loo xamee ne ni nit mën na nekk ci États-Unis di wax wax joojee am fu mu jaar ba yow nga koy dégg ci aw xott doonte ne ne bu nekkoon ci biti jàkk bi rek dox doo ko dégg ala kulli xaal yàlla moo xam xaal ba muy déggloo ay néew ak xaal ba mu ko dul déggloo amma bu dee dégg mutlaq loolee moom da ngay gis amul amul benn néew boo xam ne nii la ñu koy waxal lépp mën koy dégg directement déedéet innaka la tusmiu l mawta borom bi it subhanahu wa taala ne ko tëx bi nga xam ne daa tëx bu la wonee gannaaw mënoo ko déggal mën a fexe ba mu dégg ndax mboo ko xam ngeen ni tëx am na ci muuma yoo xam ne suñu jàkkaarloog yow ngay wax rek dañuy daal di xam à peu près li ngay bëgg a wax waaye bu demee ba woon la gannaaw c'est terminé gis ngeen bu la wane gannaaw c'est terminé naka noonu it silmaxa silmaxa bi ngay tegtal mu taxaw sa kanam au lieu nga wax nga jël say baaraam rek naan ko nii nii nii ndax dana comprendre abadan lan lay mën a comprendre mooy li ngay dégg mu wax moo tax suñu borom yàlla nag ne yonente bi alayhi salaam dalalal sa xol bul rey sa bopp waaraateel xam nga ko ciy jëriñu mooy ñi gëm samay aaya ba pare jébbalul yàlla mbokk ki jébbalul yàlla moo mën a gëm aaye borom bi jëfe ko moo tax suñu borom yàlla ni ay yéen julit ñi ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal wala tamutunna illa wa antum muslimun al muslim mooy ki nangul yàlla jalla wa ala ci li mu comprendre ak li mu comprendreul amma intellectuel bi nga xam ni lu mu dégg ci diine ne ah mais nag ah mais jamono bii nag mais nangam nag moo ko kooku du muslim al muslim boo ko bëggoon a xam da ngay xool tey militaires yi ni ñuy engagé wu dans l'armée mbokk militaire bi engagé wu dans l'armée ordre yiy jóge ci armée bi amul lum cay laaj maadaama ordre la bu yegg ci moom da ngay exécuté tant que exécuté woo ordre bi amoo droit di laaj ngi noonu suñu mbokk bi ancien marine ba lay suñu suñu Aboubacar Samb lay wax ne ci wàllu marine da ngay gis ne chef bi mën a benn benn chef taxaw ak benn waay di wax lu mu wax rek waa ji na ko d'accord d'accord d'accord ba mu dem mu woowaat ko mu ne ko waaw man maa ngi dégg nga naan d'accord d'accord est-ce que tu as le droit de ne pas être d'accord mu ne ko non chef mu ne ko demal d'accord sax amul droit wax ko lu chef bi da nga naan woy chef wala nga répété sax li mu li mu la want nga noonu bu def na la defal lii nga ne ko chef nangam defal lii pour ëllëg gi si biir doo taxoon naan dégguma ko woon léeg-léeg ñu sant la des choses yu garaaw a garaaw sama bët yi may na ma benn waay ca benn pays ci wér Afrique benn capitaine mi ngi bombardé benn village ñu koy jugé capitaine tel yaa bombardé village tel mu ne wéy avec l'ordre général jeex na loolu nag mbokk mooy muslim borom boobu nag subhanahu wa taala ca lay waxe ni heure boo xamee ni nii sama dogal ñëw na danaa génne daabatul ard daabatul ard benn mbindaafan la boo xamee ni nii dana génn fi axiri zaman ñu war koo gëm ni ñuy gëmi masixi dajjal ñu war koo gëm ni ñuy gëmi ni Isa ibn Maryam dana wàccaat ñu war koo gëm ni ñuy gëmee ne jant bi dana fenk sow amma naka lay mel la gën a mucc ayib mooy yàlla moo xam fan lay génne la gën a mucc ayib mooy yàlla moo xam daabatuni la ard yàlla may ko mu wër suuf wax ak doomu aadama yi wax ak yéeféer yi xamal leen ni gëmu leen woon aayay borom bi ca safara ngeen jëm ndax suñu borom nee na heure bu kaawteefi ñëwee ca kaawteefi ashratu saa al kubra mi ngi noonu laa tanfau nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha xayra mi ngi noonu jeex na kenn dootul gëm kenn dootul defit lu yàlla nangu borom bi génn àdduna yóbbuñu ca àllaaxira mu ne dina dajale xeet yépp qawmu nuux huud saalix ba suñu xeet xeet bu nekk ñu génne ña nga xam ne ñooy weddi woon aayey borom bi rangale leen maam ya jiitu doom ya topp ca sët ya topp ca ba ñoom ñépp ñu ñëw suñu borom ne leen waaw yéen yéen a doon weddi samay aaya ca péegu leen ko woon ci xam-xam wala boog laka ngeen doon def ca loolu it mbokk julit mi wane ne doomu aadama lépp luy gëm fexeel xam ko lépp luy weddi it fexeel xam ko gàlla waaye bul bokk ci ñuy wax ci loo xam ne teguñu ko ci xam-xam tubaab yi dañ naan sans enquête on n'a pas droit à la parole il faut nga jàng ba xam loolu it muy wane ne suñuy aaya yii di alquranul karim wareef la ci bépp jullit ñu leeralal ko ko ca langue ba mu dégg ba mu xam aaya borom bi ndax suñu borom yi nga ne yéefar yaa ngi nii weddi ngeen ci comprendre leen aka bari ci ay yéeféer yoo xam ne dañ daan xeex l'islam bu baax a baax waaye bañ demee ba yàlla may leen kattan ñu gis texte yi jóge ca borom bi liir ko yàlla wëlbati seen xol ñu daal di tuub dugg ci l'islam loolu it boo gisee tey bokkaale ak shirk bari ci jullit ñi tey mooy la ëpp ci jullit ñi xamuñu luy alquran borom boobu nag subhanahu wa taala nee na nii la kaddug yàlla di dalee seen kaw bu keroogee kenn ci ñoom du wax ca loolu étape la ci étape yowmal qiyaama yoo xam ne yéefir yee kenn ci ñoom du wax mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليدخلوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات والجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون barakallahu fiikum suñu borom mu ne alam yaraw ama ndax ñoom gisuñu anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi ñun ñoo leen defal guddi ngir ñu cay dale wan nahaara mubsira ñoo leen defal bëccëg mu nekk loo xam ne nii mandarga la bu leer naññ bu ñuy mën a gise inna fi zalika la ayatin li qawmi yu'minun nekk na ci lii day ay kawtéef ñeel xeet boo xam ne dañuy gëm wa yawma yunfaxu fi suur bis ba nga xamee ne dañuy ëf ca la nga xamee ne muy béjjën ba fa fazia man fi samawati wa man fi l ard mu daal di tiit mboolem ñi nekk ci kaw asamaan yi ak mboolem ñi nekk ci kaw suuf illa man shaa allah xanaa lu dul loo xam ne dafa soob yàlla wa kullun atawhu daaxirin képp kenn ci ñoom dana ko dikkal doon koo xam ni aju koy wommatul yàlla di toroxlul yàlla la wa taral jibala taxsabuha jamida yaa ngi gis montagne ya nga jàpp ne ñoom day ñi ngi nekk dal ne ñumm wa hiya tamurru marra sahab te pourtant day ma ngay dox doxinu ay niir sun allahi lazi atqana kulla shay'in lii mooy jëfik yàlla liggéeyub yàlla mi nga xam ne moo mokkal lépp loo xam ne nii lu mu mën a doon la innahu xabirum bima tafaluun moom day aji ñàkk kumpa la ci li nga xam ne yéen ngi koy jëf mi ngi noonu bokk suñu boroom bokk na alquran ji li mu gën a saxal ci doomu aadama yi gëmloo leen ne dee dekki dana am ca loolu mooy fondement diine mi ngi tegu ci ne yàlla kenn la ak allaxira am na ki nga xam ni gëmul allaxira kooku daanaka diine amul ci leneen luñ ko ci wax borom boobu nag ngir won leen kaawtéefam ci ne mën naa dekkal ñu dee woon mën a xoolal ni ma defee guddi ngir ñu ciy dale tey jii guddi jot na nga dëggu ci ab koñub lëmm ñépp ñu ngi nelaw mi ngi noonu kër goo dugg ñépp ngi nelaw ñee ngay gént di xeex ñee ngay gént di sëy ñee ngay gént di commerce ila axiri suñu borom yàlla subhanahu wa taala bu bëccëgee ñoom ñépp ñu nekk seen activité moom différence bu nekk entre tey une heure du matin ak une heure du soir mi ngi noonu ñépp nekk seen activité lii dalay won kattan gi nga xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala am na ko ci jaamam yi moo tax mu ne ñi gëm yàlla day dañ am mandarga kawtéef ci lii képp ku gis nelaw yewu waroo weddi dee dekk ndax bu dee ne yow logique rek am na loo xam ni logique doomu aadama yeggu fa mbokk lu mel ni gént doomu aadama dugg na ci néegam fay lamp bi sangoo majjam lëndëm total ba pare muy gént mi ngi gis ma nga ca toolam di bay ma ngay géej di napp ma ngay def li ma ngay def li ma ngay def li am na ñoo xam ne gént yooyu day am jeexital ci ñoom bu ñu bu ñu yewwoo ba am na ñu bëri gént gën doon gént di sëy bu ñu yewwoo dañuy sangu farata doog a mën a julli ji te loolu am na waay mi ngi noonu benn waay won na ma benn tànkam boo xam ni dafa tëdd guddi gént benn nag dàq ko jam ko ci bi mu yeewoo tànk bi li métti mu won ma ko fekk nag bi jamoon dafa ñuul kukk ba léegi te nee na lu ci gént la ko dale loolu mbokk képp koo xam ne yaa ngi koy gis gént benn mbir nii tey toog lu yàgg mu doog a réalisé wu alxuraan nett bi ñu ci ñu bari yonent yàlla yuusufa bi muy gént lii di nja papaam ak yaayam ak frère am di ko sujuutal booba presque ay treize ans la am dem na ba jege presque ay quarante ans loolee suñu borom yàlla doog koo amal lii kon day wañe ni ay kaawteefe ngi ci ñeel ñi nga xam ne dañoo gëm borom bi bàyyi loolu ne nag am na bis mi ngi ñëw ñu daal di ëf ci béjjën bi lan muy béjjën mbokk asamaan yi tey jii suñu borom yàlla ubbil nañu ci xam-xam loo xam ne un millième ba sax suñu maam yi amuñu ko woon ci tey li ñu yàlla may ci ay centre d'observation scientifique yi di gis ay milliards de kilomètres ci jaww ji suñu yonente alayhi salaam nag nee na yàlla bind na benn béjjën boo xam ne dafa ëmb asamaan yi ak suuf jox ko benn malaaka bu ñuy tudde israfil malaaka boobi mi ngi ko téye di xaar ndigalu yàlla jalla wa ala heure bu ko yàlla ne joxe ndigal na ko ëffal bu ëffi fa fazia man fi samawati wa man fi l ard keroog lay ànd ak tiitaange boo xamee ne nii mboolem ñi nekk ci kaw asamaan yi ak suuf dañu ànd ak tiitaange boobi bu ko defee illa man sha allah lu dul li soob yàlla borom xam-xam yi nañ ci ixtilaaf ñi ne mooy almalaika almalaika almuqarrabun yi jege borom bi ak shuhadaa ya donte ne am na ñu ni suñu borom yàlla mi ngi koy jagleel julit ñi comme ni ñu koy jàng ci aaya bi ci ñëw bi ci kanam wa hum min fazain yawma idin aminun ala kulli xaal béjjén boobu bu ko effee dana indi benn désordre asamaan tasaaroo suuf yi tasaaroo montagne yi tasaaroo doomu aadama yi ak jinne yi desoon ci kaw suuf ak malaaka yi ñépp ànd faatu gannaaw ba yàlla joxaat ko ordre su ma nifiqa fiihi uxra fa ida hum qiyamun yanzurun su ëffaatee lépp lu dee woon daal di dékk ci kattanu yàlla jalla wa ala borom bi nag nee na bu keroogee képp ci doomu aadama yi ak jinne yi ak malaaka yi dana dikkal borom bi doon koo xam ne koy toroxlul yàlla la mbokk wax ji fii la yem sañ diw amul moroom di ñu ma yaakaar nangam fii rek la yem waaye mbokk bu ñuy dem yowmal qiyaama ku nekk sa problème bopp ngay ittewoo wax nañ leen ko ci tas tafsir bi passé suñu borom mu ne kullun atawhu daxirin ku ñëw yaa ngi ànd ak toroxlu yonent bi alayhi salatu wasalaam ne yuxcharu naas yowmal qiyaamati xufaatan urraatan hurula kuy génn sa bàmmeel yaramu neen ngay def tànku neen ngay def mi ngi noonu lan dagge woon ci yow néegu góor sax day génn ñépp yaramu neen ñépp ànd ak tiitaangi kullun atawhu daxirin mi ngi noonu keroog la suñu borom yàlla di laaj limanil mulkul yawm ana tey kan moo moom lenn lillahi alwahidul qahhar mooy yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah lii la alquran wax mu safaanoog li ngeen di dégg seen rajo yi seen télévision yi borom bi subhanahu wa taala nag ni ba këréogee yaa ngi gis montagne yi bu doon looy xool montagne booy xool la dafa mel ni mi ngi nu ñum waaye fekk explosion ba nga xam ne am na jóge ci yuux googee def na ko poussière mi ngi noonu kal ihnil manfuush nga xam ne mën nga ciy dugg jàll ndax lépp def na dóom dakkatan waahida loolee mbokk la suñu borom wax moo tax muy wone ni kawteef yi rëng rëngi bis fenc mbir la bu yéeme lool borom bi nee na mi ngi nekk poussière di dox ni niir yi di doxe loolu moo tax montagne yi daan jëm fatt xur yi nga gis suuf mu nekk qaan safsafa la tara fiha iwajan wala amta suñu borom maasale la nga xam ne moom mooy montagne ñu dem fatt xur yi suuf nekk talli ñareet amoo fenn foo xam ne fu jóg la wala fu suufe borom bi nag ne lii mooy bindug yàlla mi nga xam ne lu nekk mooy xam nu mu koy defee te lu muy def danaan amal mu am nee na mooy ki nga xam ne nii it li ngeen di jëf dara ump ko ci mi ngi noonu Cheikh Ousmane
إنما أمرت أن أعبد رب هذه الدين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون jazakumullahu xayra suñu borom jalla wa ala mu ne man jaa bil hasana koo xam ne dafa dikkee ci lu baax fa lahu xayrun minha dana ko ñeel lu gën lu baax loolee wa hum min fazain yawma idin aminuun te ñoom day ci tiitaangeeg bisi keroog aju ñu cay am kóolute lañu wa man jaa bi sayyi'a koo xam ne dafa dikke ñaaw téef aw ñaaw téef fa kubbat wujuhuhum fi nnaar ñu dëpp seen kanam ya ca safara hal tujzawna illa ma kuntum taamaluun boole ca di leen wax ne ama ndax fay nañu leen lu dul li ngeen nekkoon di ko jëf innama umirtu an abuda rabba hadihi albaldati alladi harramaha man day dañ maa digal ma jaamu borom dëkk bii nga xam ne moo ko warmaal muy makka wa lahu kullu shay'in te ñeel na ko lépp lu mu mën a doon wa umirtu an akuna min al muslimin te dañ maa digal ma bokk ci ñi nga xam ne dañoo jébbalul yàlla wa an atluwa al quran dañ maa digalit ci may jàng al quran fa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi koo xam ne daa jub ma ngi jub ñeel boppam rek wa man dalla fa qul innama ana min al munzirin képp koo xam ne dafa sànku neel man day maa ngi bokk ci xuppaatekat yi rek waaraatekat yi wa qul alhamdulillah nel sant day ñeel na yàlla sa yurikum ayatihi fa taarifunaha dana leen won ay aayaam ba ngeen xam ko wa ma rabbuka bi ghafilin amma taamaluun seen borom yàlla nekkul day di saggane li nga xam ne yéen a ngi koy jëf mi ngi noonu mbokk suñu borom mi ngi ñuy wax bis boo xam ne mi ngi suñu kanam bis boo xam ne dana dekkal ay jaamam doomu aadama yi di ko dikkal borom bi ni koo xam ne dafa indi aw yiw dana ko ñeel lu gën loole yiw wa gën a màgg luy indi yowmal qiyaama mooy laa ilaha illallah bu sell te mooy tawxiid gannaaw loolu it bépp tiyaaba boo defal sa boroom ca julli yaag koor yaag sarax yaag tasbiix yaag lu mu mën a doon suñu borom nee na da nga am lu ko gën ci yàlla dina la ko fulal lum néew néew fukki yoon waaye suñu borom dana man jaa ay koo xam ne da koo dikkee ndax képp koo xamee ni nii dafa nekkoon ci kaw suuf di def lu baax di def lu baax ba dara desul lu dul dee mu dellu gannaaw def lu bon dee yàlla lu bon lu baax lam doon def du ko jëriñ dara ci yàlla lu baax da nga koy dee yaale mu doog laa jëriñ suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne tiitaange bi am yowmal qiyaama ñoom dañ leen ciy dalal dañ ciy am kóolute te loolu it mag ñu koy wax ci yeneen saar rawatina suratu fusilat borom bi nee na malaaka yi ñooy wàcc ci seen kaw naan leen bu leen tiit gis ngeen fitne bi am sawara bee di bëmb nangam nangam bu mu leen tiital yéen yàlla subhanahu wa taala dana leen musal wa hum min fazain yawma idin aminuun amma koo xam ne da ngaa indi ñaawteef ndayu ñaawteef yi mooy shirk billah koo xam ne daa indaale shirk billah ku mel noonu day sawara muy wàccuwaayam waaye it bokk na ca yenn bakkaar yi ñaawteef yoo xam ne ku ko yóbbu yowmal qiyaama ci yàlla baalulu ko da nga tabbi sawara même boo fay génn après bokk na ci loolee mbokk lu mel ne njabar lu mel ne rey nit lu mel ni lekk riba lekk alali jirim tuumaal nit ñi ay njaaloo daw ay bisu xare ak bakkaar yu mag yooyu nga xam ne nii suñu borom ak yonentam wax nañ ko ci ab téeréem képp koo xam ne indi na ko yowmal qiyaama dee yàlla ko te it gis ngeen fiir yàlla dane man jaa bi sayya waa ñi nga xam ne doon na agressé pendant soixante dix ans avant muy dee tub na tub sell njaalookat bi tuub na tuub bu sell bokkaalekat ba tuub na tuub bu sell kookee bokkul ci ñi yàlla wax yàlla ngi waxe ña nga xam ne ba ñuy dee ña nga indaale lu bon loole dañuy dëpp seen kanam sawara seeni tànk fii ca kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax naag Muaz ibnu Jabal di ko wax yoon yi tax mu texe ba ca fin ba mu ne ko Muaz kaay ma dénk la li gën a gaaw ci texe mu ne waaw mu ne ko fexeel sàmm sa làmmiñ wi mu ne ko ah yi mu yàlla yónni yàlla danañu jàpp ci li ñuy wax mu ne ko sakilat ko ummu ko yow Muaz ah Muaz xanaa xamoo ne waa sawara bu ñu duggee seen kanam dañ koy dëpp ci biir sawara dara taxul lu dul seen làmmiñ kon mi ngi noonu kubbat wujuhuhum fi nnaar borom boobu subhanahu wa taala nag ni ndax fayu ñu leen lu dul lu ñu nekkoon di ko jëf te mooy ahakay ndax it mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala it ci maandu teem képp ku def benn tuyaaba mu bindal la dix te la gën a néew nga def bakkaar ñu bind un suñu demee nag ba yoomal qiyaama di peser say jëf bakkaar égale un gramme tuyaaba égale dix grammes nga saggan ba say un un ëpp say dix dix vraiment yow ku texee di nga fay nañ la la nga xam ne mooy sa jëf borom boobu nag subhanahu wa taala wëlbatu ko waat ci yonentam ne ko nee leen man dañ ma sant ma jaamu borom néeg bi mooy borom dëkk bi te mbokk mi ngi noonu jullit du jaamu lu dul yàlla mi moom lépp jullit du woo jibril du woo mikail du waat ci kaaba gi du waat ci arsh waaye da ngay waat ci borom jibril borom mikail borom arsh borom kaaba maa ngi waat ci borom dëkk bi nga xam ne moo ko araamal warmal ko muy makka képp ku fa bëgg a def bakkaar yàlla mbugal la tuyaaba ya nga fay def rawatini di julli yàlla ful ko julli gu nekk égal téeméeri junni julli ci feñeen fudul moom borom boobu subhanahu wa taala it ne moo moom makk waaye moo moom lum mën a doon lahu kullu shay'in malaaka yi moo leen moom nit ñi yonent yi moo leen moom moo moom asamaan ak suuf moo la moom moom li nga jàpp ne yaa ko moom gaa yi sa njaboot gi yàlla leen moom de alal ji nekk sa compte bi ak sa poche bi yàlla moo ko moom lahu kullu shay'in loolu tax jullit amoo droit jël sa alal di ko defe n'importe quoi ndax alal ji dañ defee teg gérant mais moo moo ko alal ji alal yàlla la looloo tax bis boo deeyee yàlla mooy intervenir ne jox leen soxna si nangam góor nangam jigéen nangam bay nangam yaay nangam lu tax mooy alal ji alali yàlla la tu n'as pas le droit alal ji ngay dee séddale ko nam la neexe déedéet lu tax mooy moomoo ko lahu kulli shay déggal nañ ma it ma jébbalul ko mbokk yonent baa ngi noonu moo jëkk a jébbalul yàlla nangul yàlla looloo tax ba am na musiba bu ñu indi ci suñu diine ji mooy musiba borom sañ-sañ am na ñoo xam ne da ngay dégg ñu ne dañ leen a baddil ñu noonu gis naa kilifa gu mag mu toog ay vidéo di wër partout dans le monde mu ne suñ diw yàlla da ko baddil baddil ay taalibeem donc loi yi ngeen di gis alquran ku naana ku sangara ku paase ñeenti jabar ko loolu moom ñeneen ñi la considéré mais ñi ñoom dañ leen a baddil mbokk déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam doon digle moo ca jiitu lam doon tere moo ko jëkk a bàyyi umirtu an akuna min al muslimin daana wax maa leen gën a ragal yàlla maa leen gën a tapp yàlla mi ngi noonu jàll sallallahu alayhi wa sallam digal nañ ma it ma jàng alquran mbokk fa lillahi alhamd ñi ngi sant suñu borom bi ñu dajee ci ab néegam di jàng ab téeréem digal nañ ma ma jàng alquran doonte ne doomu aadama yi tey séddiloo koo nañu soo demee ci li ëpp ci doomu aadama yi tey da ngay gis ne sànni nañ ci réb yàlla ba fële journaux yi remplacé nañ alquranul karim demal ca bis ya demal ca mbooloo ya gis ñu bëri ñu nga yor seeni journaux waaye nga gis un jeune intellectuel toog ba mujj mu ne bu xéet ab alquranam di jàng loolu lu raar la ci doomu aadama yi am na ñeneen nag ñu gën a extrême ñoom jàpp nañ ne am na téere yoo xam ne nii sëñ bi bind na ko jàng téere yooyee moo ëpp doole jàng alquran waaye ngal la waay julit maa ngi lay digal heure boo amee temps libre jëlal téere yàlla bi di ko jàng xarf boo jàng fukk tuyaaba la xarf boo jàng fukk tuyaaba la ca wallahi da ngay gis ne benn minute rek daanaka mën nga cee jàng page bu alquran page bu alquran boobee da ngay gis ne ñaataa ci nekk xoolal temps bi ngay perte yëpp umirtu an atluwa alquran donte ne tilaawa boobu la cee gën a mat mooy jàng boo xam ne day ànd ak topp moo tax da ngay gis suñu borom subhanahu wa taala mi wax a alladina mi ngi ne yatluunahu xaqa tilawati xaqa tilawatihi mooy jàng ko ba pare topp ko comme ni borom bi di wax naan wal qamari ida talaha weer bi heure bi muy topp jant ba képp koo xam ne jub na boppam a tax muy jub ay waay aaye bi it ak a neexoon ñu koy ubbee rajo yi ñu koy ubbee télévision yi gaa yi ko jub boppam la jub la jubal amma ñun li ñu jàpp mooy sëñ bi liggéey ni liggéeyaaleel nañu wallahi benn jeune ci ndaw ñi nekk Espagne nettali na ma mbooloo mi mu nekkal ci kër gi ñu dëkk day jóg di julli waa gaa yi di gën jóg julli ñu ne hoo sëñ bi ñun sëñ diw julli laa leen nañu jeex na ah bu ko déedéet ki jub boppam la jubal yeneen ci yàlla yi alayhim salaam seeni jaamu yàlla dugaluñ ca kenn yeneen ci yàlla muhammad taxaw na ca safa ay yéen waa quraysh musal leen seen bopp ci sawara inni la amliku lakum min allahi shay'a di woote waa bani hashim ba woo doomam ja fatima fexeel musal sa bopp ci sawara mënulu ma leen ci yàlla dara ku jub boppam lu jubal fa innama yahtadi li nafsi waaye képp ku réer it naka noonu boppam la réeral suñu borom yàlla ci maandu teem doo ñëw mukk yowmal xiyaama mu ne xanaa kii di doomu diw yóbbu leen sawara déedéet lu tax ngir firawna mooy bàyyam déedéet ngir agresseur teel mooy bàyyam déedéet bàyyi lam noonu def kooku c'est son problème sëriñ la ñuy def problème am la imam la muy def problème am la bu baaxee bu bon ngalla waaye fexeel def lu baax fexeel mucc ci lu bon moo tax suñu borom yàlla ni nee leen man waraate ket dong la innama ana min al munzirin gaddu lu ma leen dara danaa fexe daal ba wax leen de lii la yàlla bëgg lii la yàlla bañ wa qul alhamdulillah gannaaw bi nga wax leen ni sant yi muhammad ya yowu ko du ibrahim du moussa mboole mi cant ñeel na yàlla kese qul alhamdulillah looloo tax léegi bi ngeen jullee ci bis ba pare képp kenn ci yéen wax na 33 fois alhamdulillah bu ngeen julleegee ba pare yéen ñëpp da ngeen waxaat 33 fois alhamdulillah lu waral loolu may qul alhamdulillah sant yëpp ñeen na yàlla dana leen won nag ay kawtéefam ba ngeen xam ni alquran ci yàlla la jógee te yàlla subhanahu wa taala sàgginewul lenn lu ngeen di jëf te loolu mbokk mooy garaatu ihsaan ihsaan boobee mooy lan foo mën a toll nga yëg ne sa borom yàlla mi ngi jàkkaarloo ak yow di xam li ngay xalaat di dégg say wax di gis say jëf lii mooy la nga xam ne mooy grade bi gën a kawe ci diini ñi ngi ñaan borom bi jalla wa ala yal nañu teete ba du ñu gis lu dul fa mu gërëm yal nañu wërsëgal ba du dégg ci ñun lu dul la mu gërëm yal nañu wërsëgal ba du gis ci ñun lu dul la mu gërëm yal nañu jéggal suñuy rëcc rëcc mi ngi noonu mbokk dilit wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw na imam boo xam ne nii dafay yàq fatiha ba ci nga nekk di julli ci gannaawam wala kulli haal mi ngi dépendre ci yàq goo xam ne nii dafay changer maana ya complètement fekk ni du doon loo xam ne nii aw làmmiñam moo ko ko yóbbee xam ngeen ni lu bari ci sunu lakk réew yi imam yi nga xam ne nii dañ ciy nekk di jàng fatiha wala alquran bu mu mën a doon accent ba ñuy àndal léeg-léeg pour ñu génne xuruf yi nam ware dana doon lu jafe bokkul nag koo xam ne da koo mokkulul di ko yàq ku mel noonu moom bu amee keneen koo xam ne tane na ko fa waruñu koo bàyyi muy jiite loolu daal mi ngi noonu amma yow mi nga xamee ni nii da ngaa ñëw ca jàkka ja yow faloo imaam amoo ci benn pexe fexeel nga xool ndax jàkk bi rek moo fi sës jàngal yow sa fatiha ca xam ne sa julli moom baax na su dee am nga beneen jàkka nag nga dem ci beneen jàkka wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah waaw waaw waaleykum salaam waaw bismillah waaw waaw mu ne ah alalu jirim waaw waaw waaw waaw waaw waaw pour waaw waaw ala kulli hal alal jirim suñu borom dane wala taqrabu maalal yatima illa billati hiya ahsan alalu jirim dañ ko war a dencal borom ba màgg ñu jox ko ko lu dul ci loo xam ne da koy ful suñ gisee ni alali jirim jaa ngi nii suñ ko jëndee terrain terrain boobu valeur am day yokk dañ ko jënde ay nag ay valeur am day yokk ak lu mu mën a doon loo xam ne am nañ yaqiin ci ni buñ ko ci defee alal ji day yokk dañ ko caa war a def amma loo xam ne nii amuñu lu ñu wóor waruñoo jël alal yi jirim di ko ca engagé amma nag def ko ci lu koy ful moom loolu moom jaamu yàlla gu rëy la amma dafa am ñoo xam ne am na bis bu ñuy wootee di ca cotiser pour def bokk nañu xam ne daal l'islam ñun li ñu xam mooy islam ñaari fan la ñu xam ci fee ci l'islam mooy korité ak tabaski ñaari bis yi la lislaam xam moom la ñu yonent bi jàngal sahaaba yi loolu lañ fi bàyyi woon leneen lu dul loolu nag mbiri leneen la waaye bu dee njàngalem lislaam moom ñaari bis lañ xam ci yoo xam ne jullit dañ ko war a jël di ko màggal muy bisub korité ak bisub tabaski mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam waaw ilakum naam
ñëw fekk imam bi julli gee nekk ci dernier rakka ndax dafay ñëw jox ci imam julli gee après julli julli timis wala dafay ñëw julli moom ànd ak imam julli timis julli timis après gannaaw ñu julli
wala kulli xaal yooyu yee ci ay masala la yu borom xam-xam yi wax ay ixtilaaf yu bëri su doon damay wax ak yow ci mazhab Malik daal dama naan la ñoom dañ naan àndal ak imam bi ci géej gi mu nekk naafila soo paree nga julli sa timis julliwaat sa géej am na nag ñoo xam ne ñoom dañ naan timis googee mën nga ko yéene ci biir géej gi su paree nga daal di julli la nga xamee ne nii moom mooy sa timis ba ñenn ci ñoom sax dañ naan boo julliwul woon timis ñoo fekk imam di waaj a kabbar ge àndal ak moom julli timis ñetti rakkaa yi gannaaw ba nga sëlmal yéene gee ci quatrième rakkaa yi moom ànd ak moom ala kulli xaal yooyu ixtilaaf la yoo xam ne nii day am ci borom xam-xam yi lépp loo xam ne nii nit ki def na ko ca ca yàlla tax rek incha allah jàpp nañ yàlla dana ko fay wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah naam sax na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku wax fukki yoon la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir mel ne nga ko goreel ñeenti jaam ca doomi Ismaïl naka noonu it la saxee képp ku wax loolu téeméer yoon ci bis bu nekk bu keroogee kenn du indi jëf yu ëpp jëf ju gën a baax sa jëf lu dul ko wax lu ëpp ci ëpp loolu te loolu it ndaw yi suñuy bàyyi ci xel bu baax temps yi rek maa ngi dégg benn waay bu may laaj ne yonent bi alayhi salaam dana woon damay jéggulu soixante-dix fois wala cent fois bis bi boo ci xisee ba wax cent astaghfirullah amoo droit teg ci benn beneen boo ci teg bidaa la bokk loolu ay njuumte la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal yooyu mu doon wax yëpp danaan ko def lii wala kenn du ko gën a rafet xanaa ko def lu ëpp loolu su ko defee astaghfirullah góor-góorlu ci def sa kemtalal kattan ñu ngi noonu lu minimum minimum nga koy def lu mu néew néew ay soixante-dix fois comme na koy leen ci bàyyi salaam doon waxee léegi la nga def ko cent fois boo defee lépp loolu dara nekku ci la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu ala kulli shay'in qadir def nga ko cent fois soo defee lu ëpp loolu moo gën wallahu subhanahu wa taala alam naam yaakaar naa ah naam waaleykum salaam wa rahmatullah ndax daabatul ard dafa am lu muy marqué ci kanam yi ñëw na ci ay xadis wallahu aalam bi sixati mooy su demee dana wër doomu aadama yi jullit bu mu dajeel day bind sa jë kaaf day bind sa jë la nga xam ne ni mooy miim ñu wane ne kii mu'min la bu dee ne ab yéefir ñu bind ci kaafir mi ngi noonu day day bind ci jë jullit ñi mu'min bind ci jë yéefir yi kaafir ba dañ naan ay frère daan toog ci seen kër ñu xam ne ñii jullit lañ ñii kaafir lañ loolante ne ne loolu ñëw na ci ay xadis wallahu subhanahu wa taala alam soo demoon ci téere yi wax nañ ci lu bëree bëree bëri rawatina yow ndaw mi am lu mel ni tafsir ibnu kasir waaye daal la gën a mucc daal mooy lañ ci alquran wax daaba bi dana génn yowmal qiyaama dana wax ak doomu aadama yi gëmul na leen gëmu leen woon seen aye borom bégal leen ci mbëggalum yàlla avant bis penc di taxaw yal nañu yàlla boole ci ña gëm ay ayam avant loolu lépp di xew yal na yàlla musal ñu ci mbëggalum àdduna mbëggalum alaxira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain